ku gën a mën a xër nit ñi ci rayanteeg bañanteeg mooy asabiya cot cotloo dégg nga apartheid kii moo maa gën diw diw gën diw diw du dara parce que man sama cosaan lii sama cosaan lee bàyyi dafa bindoon ay taalibi ci Mauritanie ne leen wala yaxurrannakum kasratu mafaaxiri abaikum wa ajdaadikum fa aslul bawli maaun tayibun saafi sama bàyyi amoon na lii sama maam lii la loon amoon nañ ay puukari ci jamono def nañ lii def nañ ay nangam bàyyi ne bu loolu bu mu leen nax ndax saw saw wi nga gis ndox mu teeloon bu set waaye gox ku nekk rek sa saw sax bu la laalee nga fomp ko bala nga am jàmm te cosaanam dafa selloon kon nag mu ne sama cosaan dafa sell rek tekkiwu dara duul yëf yi chance la boo ko boo boo buggee boo sellee ko moom parce que sa cosaan li ko jox tagg rek mooy sell bi rek boo sellee comme cosaan bi rek sell nga boo sellut cosaan bi dafay dem yow tim nga dem ndax li yàlla wax nuuxu alayhi salaam innahu laysa min ahlika innahu amalun gayru saalix bàyyi mu ne ci loolu moo tax neenal yar sa njaboot mën naa dagg askan parce que bu demee ba ki ko doon yar wàjjur wi baax maam ji baax te njaboot gi baaxul mu ne askan bi dagg loolu tim ku ko xam ngay jéem baax rek